boo dee xool alxisnul xasin ku ñu wax ak dimashki moo ko defar wax nañ ca ne hadis ba nee na boo suba te jullee ko ci mbooloo nga toog di tudd yàlla ba jant bi fenk nga julli ñaari rakka da nga am tuyaabay ajak humra yu mat sekk yu mat sekk yu mat sekk dañoo baamu mat gi sekk ndax fedd li dañuy bàyyi nag ba jant bi fenk ba yëkkati kulu mat ñetti meetar ci boo ko dee xool ci sa bët boo nekkee ci biir mën laa seen jant bi man ngaa xool rek waxtu wañ nodde salaatu buñ ca tegaatee waxtoog genn wàll rek dana fekk jant bi fenk ba yëkkatiku lu mat ñetti meetar ba ëpp ko incha allah